Mm-hmm. am nañ ay indices yu war a mën a tax ñu yàpp ne moom moom indices yi fii nag mm-hmm. rapport ñoom ñoo ko révélé mm-hmm. rapport yi ñoom ñoo saytu ba xool ne diw ak diw ak diw ak diw ak diw ginnaaw bi ñu leen dénk tel bi année bi ba année bi njort nañ ne def nañ lii léegi ñu njort ne yow yaa def ça ne suffit pas que yow yaa def parce que présomption d'innocence dafa nekk loo xam ne dafa am solo ci mbaalum droit pénal donc du loo xam ne nii lu ñuy foowe la wala lu ñuy kafe man dama bind ci enrichissement illicite en 2000 en 2013 bi may def sama mémoire à l'université Gaston Berger ma relever failles yi la loi euh, euh, euh, quatre du point de vue de la défense. parce que mhm. mhm. souvent damay interroger ci li nga partie la défense au niveau du procès pénal. Mhm parce que la défense quand même partie boo des fois boo demee au procès surtout en matière de poursuite et affaire ou délits économiques et financier mhm. dafa nekk partie boo xam dañ ko affaiblir carrément mhm. boo jëlee les dafa amoon li ñu naan renversement de la charge de la preuve je voulais en venir même mhm. non seulement renversement charge de la preuve dafa amoon mais a woon degré double degré de juridiction donc il y a eu ko gens qui ont na ci liy affaiblir droit de défense fort heureusement nag le président parce que c'est pas c'est pas pour judiciaire et financier. Mhm. d'où le président Bassirou Diomaye Faye mon bien avant Il mhm. mhm. donc lool bokku na ci bagage yi nga nañ au moins la loi euh, euh, ce qu'on appelle la de répression de illicite. innovation majeure yi moy dañ ko confier de manière spécifique parce que juridiction d'exception la woon juridiction d'exception fu koy waxé souvent généralement day indi ay rëq-rëq ci walum ci walum ci walum droit de la défense. Mm-hmm. ba tax na tey ñun am nañ njort gu rafet. am nañ njort gu rafet ni ñiñ fay topp dinañ dinañ respecté seen ak ak yelleef. Mhm. te bés buñ ko respecté dinañ bokk ci ñi njëkk a taxaw ne respecté wuñ seen ak ak ak seen yelleef. Mhm. par rapport ak ñoom lañ leen di toppee. Mhm. donc loolu noonu moom man dama jàpp ne reddition des comptes lu war ci réew. te ñi nga xam ne dañ leen fay topp tamit c'est pas parce que ñoom ñoo def sénégalais yi dañ dañu dañu war a distinguer le fait que ñu tuumaal la ak ñu ne yow yaa kii décidé ne yow yaa def. du nit ki lay tuumaal nit ki lay tuumaal daf ko sukkandiku rek ci ay prémices. ci ay ci ci. mais est-ce que turuñ cité ci sànq ne ay ñoom Abdoulaye daoudo Diallo ak ñeneen est-ce que loolu yoon la woon ñu cité leen nommément. est-ce que loolu waruñu woon bàyyi ba tuuma xam da ngay dañuy distinguer loo xam ne ni xëy na lii chaîne de responsabilité mhm. le premier ministre di doon faire état mhm. Mhm. ñii ñoom ñoo yoroon banqaas yooyu noonu mais ça sous-entend aussi ça sous-entend aussi te dañoo war a répondre de responsabilité effectivement bu ñu la dénk mais ñooñu dañ leen dénkoon te ginnaaw bañ leen dénkee nag njort nañ ne am nañ ay rëq-rëq ci seen ci seen i doxalin mhm. mais yoon war na laajte càmbar. ñu mhm. xool loolu ñu leen dénkoon est-ce que liñ leen di tuumaal nii. Mhm. am na wala amul. mais ay tuuma rek la. Mhm. ça reste à l'état de tuuma. à état de suspicion. <laughs> donc état boobu noonu la des. c'est pas parce que ñoom ñoo def ñoom ñoo def. il faut qu'une juridiction légalement constituée. puisse déterminer de leur culpabilité ou pas. d'accord euh, allez-y. oui oui si si wàllu si wàllu si wàllu rapport yi. Euh, man man awma problème sur le principe de reddition des comptes. nous, sommes, nous sommes tous d'accord. Euh, lorsque tu as été ordonnateur de dépenses, euh, wala tu as été à la tête d'un ministère. même vous dee ministre et ordonnateur de dépenses beaucoup moom arrive arrivé woon ci cas Mbaye Niang Il Mbaye Niang gars yi parce que ñu ils ont pensé que Mame Mbaye Niang dafa dépenses, ay dépenses. musul ordonné ay dépenses. ñu jël ko comme nous ñu comme li nga wax et j'ai bien aimé votre relance parce que da nga ne ko lan moo tax ñu tudd tur. parce que Mame Mbaye Niang li ko sonaloon tout tout tuddoon turam et pourtant l'inspecteur des finances bi compte ministère des finances Samba Laobé il ba muy def enquête bi ta gañu ci Covid bi. Mhm. ba muy def son enquête a def son papier a yi papier bi génne ko ci mbéd bi pourtant li ñu ñi xamul c'est lui-même qui lui a demandé de faire cette enquête au niveau de l'IGF mhm. malheureusement ñu a tout tout le Niang comme ko xawon na jege régime bi. politiser affaire bi ne ko 29 milliards product mhm. yoy lañuy bañ cest à dire que yu cas de figure yi la bañ. la éviter encore. Mhm. sénégalais ce cauchemar. manam mhm. biñu dundu mhm. pendant des mois manam mo jël jëlul. mo jël jëlul pour parce que pourquoi ñu wax ko. yow tay da ngay da nga ne da nga da nga da nga da tu te fies à des rapports tu es légaliste. mais ah, soyons légaliste jusqu'au bout. Mimi Touré cité nañ ko ci rapport kan lañ ko fal faluñu ko démb faluñu ko ya ya ya deux semaines. au responsable de de xaw au responsable au au représentant du président de la République. pourtant Mimi Touré est dans un rapport. Voilà, rapport alors euh, euh, comment il s'appelle euh, comment dirais-je l'autre qui est dans un rapport comment il s'appelle encore comment excuse non pas Moussa Diop Moussa Diop non y a y a y a Atepa Atepa oui Atepa Goudiabi mais liste mais Atepa rapport mais là aussi le temps pas le temps de non mais non, non non mon mhm. liste liste bi dañ jël temps defal ndànk rek liste bi dañ jël temps xaar rek liste bi dañ jël temps cité des gens nommément ne dañu jël nangam dañ leen wax et que prochainement. ils vont défiler devant le pacte financier non mais ma mais non rek et que prochainement os prochainement ces gens qui sont sur la liste devront répondre Wa si amna pour dañ ne ces gens qui sont sur la liste sont censés répondre devant le parquet financier ñooñu ñëpp dañ ne si c'est wax. ci rapport les leen épinglé mais ñun ñun gis nañu ñun ñoo xam ni ils ont été dans le régime de Macky Sall au-delà même des personnes qui ont été épinglées. non le premier ministre a dit que li nga xam ne wax nañ ko mooy kii Friedman ak yooyu ces gens-là devait être au courant. non waxuma waxuma ci cas d'espèce bi ah, ah, maa ngi wax ci kaawu liste bi ñu dressé dernièrement. des personnalités non xaar rek man dinaa la wax lépp. Mhm. des personnes boo ma laissee finir rek dinaa la wax lépp. des personnalités qui ont été impliquées dans des fautes de gestion liste boobu lañ ne man li ma li ñu jaaxal ñun mooy am na ñoo xam ñu ci rapport ñu cité leen ci liste bi ku mel na Lat Diop ci rapport mais on a vu des gens qui sont sur des rapports Noirs sur blanc et qui ne figurent pas sur les listes et même mieux qui sont aujourd'hui à la tête soit d'une institution ou qui ont été nommés quelque part Nous avons un problème dès le départ il y a un parfum de chasse aux sorcières Nous ce que parce que personne ne peut nous prendre à ce piège là que nous voyons c'est un fonctionnement normal il est dans son non il n'est pas dans son rôle Limudef, normalement ki ko waroon def. moy mhm. soit le procureur de la République amna na ñoo xam ne soupçonné nañ leen mu ñew def ko. Mhm. wala bok ko xamni parce que ñi ci Ousmane Sonko di top. c'était ses adversaires les plus farouches ay Abdoulaye Daouda Diallo ay Amadou Ba c'était des personnalités yo xamni ku nekk xam Ousmane Sonko son rêve. c'est de voir ces gens là derrière les barreaux lool moy rêve am tant que tëju leen du am jàmm. non mais <laughs> loolu mooy rêve Ousmane Sonko. cest à ça Ousmane Sonko dafa am ñoo xam ni. fi leen tëju non Ousmane Sonko dafa am xam dans ce pays. Mhm. filer japonais parce que xam nga lu tax jeune Pastef yi ak électeur Pastef yi loolu la ñuy xaar seen attente la dafa am ñoo xam ni waa Pastef dañu bëgg ñu nous japonais chaque jour ah, boy sur ah, les réseaux sociaux dañ naan la ah. à quand le tour de tel à quand le tour de tel donc répondre à cette demande électoraliste là

honnêtement Djibi pour man da nga nek ci posture défensive bo xamné ni xam ne. damay débat rek ci relax non non non damay débat parce que bu fekké né des fois des fois da ngay wax lo xamné ni man mi di. man man man ça me fait tilter quoi. en réalité. yo boo nee liste ak taw bi ak taw bi climat bi dafa. non non ah. boo nee liste. non <laughs> léegi ma studio bi neex na et puis. man je suis pas le journaliste. du man ma habilité pour poser. pour poser des questions. mais boo nee liste di mané liste fan nga ko jëlee est-ce que procureur moom mo taxaw dresser ben liste. né tant de personnes personnes ni dañ leen di top pour leen yow nga recoupé ces journaux gis ñu dégg ci ay revue de de presse ñu une liste tel tel tel tel nga ne liste bi ñuy wax liste boobu liste lañu porté kan mais am na des plaintes yu yu est-ce que liste boobu est-ce que habilité ko a non non liste de dans les jours qui viennent. il y aura une liste de personnalités de personnalités mhm. ils sont impliqués dans des affaires douteuses. mais c'est pas non, non non non laissez-le terminer comme nous nous mhm. supposons que. Mhm. y a une presse. très affiliée et très proche de Pastef. te yàgg nañ leen gis ñoom. kan moo ko génn ban presse ko génn. boo ma bàyyee ma boo ma posé question ma bàyyi ma répondre. waxal si waxal si micro bi léegi xam nga day nekk day nekk non non non non. Aliou Aliou Manga Sarr bàyyi ma rek ma recadré leen. Sénégalais yi la ñuy wax de monsieur Manga Sarr. léegi léegi jibi jibi jibi jibi jibi jibi jibi xoolal la presse affiliée à Pastef ñoo yow génne liste. non non non ah c'est ça la vérité. c'est ça la vérité. il faut le laisser terminer. quand ah, c'est ça la vérité. le procureur de la République a na def conférence de presse comme dans l'affaire Karim Wade et consorts nous avons fi ñu une liste de 25 dignitaires du mhm. régime du PDS. Mhm. ñu avons ñii ak liste ak ñii dañ là je serai entièrement d'accord avec toi.

parce qu'en réalité bonnet liste amna il faut aussi savoir faire la distinction entre le premier ministre zone wax sànq ak li nga xam ne prolongement ou réduction des comptes Nous ñuy a ni nga par rapport la responsabilité mhm. parce qu'il dit qu'il ne pouvait pas ne pas savoir ce qui se passait donc war nañ situer ses responsabilités Nous avons nga en mhm. matière mhm. de réduction des comptes di nga ay rapport épinglé la rapport yi kay moo ngi ne gasax ci dëkk bi. ay rapport waaw la moo tax Mimi Touré. la moo tax Mimi Touré cité woo ko. lan ci Mimi Touré la moo cité woo man dama jàpp dama jàpp. Hmm. man mii di wax ak yow. dama jàpp rapport. koo xam ne rapport épinglé la parce que rapport épinglé la comme ni ma la wax c'est pas parce que yow yaa def. sans vous ne nous apprenez rien du tout dama ne lan moo tax Touré. même bu fekkee ne rapport épinglé la le petit frère de Ousmane Sonko ak ku mënti doon man nekkuma fi pour ay hmm. politique politicienne wala man nekk hmm. pour yaa ma neex ay Pastef kooku noonu dañ la war a dañ dañoo war a leeral rapport boobu noonu lan la wax justice dafa war a déterminer wu par rapport ak fee yooyu noonu ñu lay toppee ak koo mënti doon nekkal mimitu rek nekkal keneen ak keneen man je ne fais pas la distinction entre kii fii la far ak kee fee la far hmm. te jàpp naa ne tamit ñi nga xam ne nii ñoom ñoo nekk au pouvoir actuellement defuñu cette distinction boobu noonu

liste ça émane des autorités judiciaires ces personnalités là sont poursuivies. mais mhm. de la première personne à la dernière personne nous, nous on a mis un point d'interrogation parce que dans le régime de Macky Sall entre guillemets proche Ousmane Sonko déclaré son amitié à Ousmane Sonko ces gens là gis ñu leen avons dit deux Touré bi nga xam ne dañ ko épingler dans un rapport li ma wax nii fee la te épingler ba ñuy épingler im Touré je rappelle pour l'histoire que c'était sous Macky Sall sous Macky Sall non xaar rek non xaar rek non non non non c'était sous Macky Sall non mais non attends non attends les deux milliards qu'on a qu'on a qu'on a qu'on a qui nu ñu qu'on a soupçonné que ni dañ ko dañ ko détourné au fele mu koy waxee. conseil économique et social conseil économique et social. Mhm. lolu lolu c'est un rapport de l'IGE. c'est un rapport de l'IGE boo paree bon boo paree bu kuwee bu kuwee bu non non ah, non c'est pas parce que Non, ko pas amul. on est bien d'accord voilà très bien c'est pas parce que soo ko te non c'est juste après bi ñu ko dàqee lañ ko génnee. dañ ko génnee problème timing m'a posé voilà mais mais mais rapport bi wax nañ ko. Mhm. beneen affaire da cee nekk ñu baal ma rek damay damay yeggale rek. voilà damay yeggale rek. quand on nous dit que le budget euh, dafa am ay fausse déclaration et que les écritures ne sont pas exactes mais le budget en une fausse déclaration avec culture exactement mais quand ils dépense 12 milliards il dépense à la primature loolu bon ci budget quand 12 ah, milliards à la primature. non non Non, non. Non, non non non c'est un organe de l'État qui l'a dit. non non non non c'est un non non non non grave c'est c'est un c'est un non c'est Non, ah, non 30 secondes pour il faudrait que ñu ñu au-delà des personnes ñu nekk mhm. sur les principes mhm. Mhm. ba pare aussi xam nga man bon ak même étant journaliste je respecte tous mes confrères ak yooyu mais mënuñu sur la base de kenn moo def benn déclaration ci mais man dama ne bon maintenant sur le principe on peut demander au président les rapports de l'IGE ñu génne ko ak yu demee noonu mais dañu ne mais man fimay waxé moy fimay waxé moy les 12 milliards qui ont été dépensés à la primature lolu fait la lolu fait la lolu fait la wa primature qui ken génnul démentir ko. ba ku weexante ak yow yow rek la dégg non xaar yow rek la dégg nga génn démentir ko ba paré taxi ba paré taxi taxi 12 milliards yoy ñuy wax noonu tay ji bokay xol à nos jours primature lan moo fa am comme agence primature amul agence xam la mo am primature bureau premier ministre ses secrétaires ak les cellules yi nga xamni moy premier ministre et les différents ministères fan lañu nous consommer 12 milliards dans le mais ça a été démenti hein. alors mais ça a été démenti. <laughs> non non non non non c'est pas des recoupements de la presse dañ nous informer.

est-ce que le premier ministre dans les déclarations il doit être prudent mais est-ce que le premier ministre dans ses déclarations. devait être prudent est-ce que est-ce que preuve que vous wax dit alors très clair part ça entre dans le cadre de la, de, de la réduction. Mhm. Mhm, mhm. J'ai salué oui. la prudence du ministère de la Justice. Oui. Oui, j'ai même dit que le, premier, le porte-parole du gouvernement, j'ai vu qu'il était très pédagogue et l'hymne de c'est des digestes. Donc, Et son colimwa à part, il y a une déclaration. J'ai dit quelque part. Même le fait que nous citions nous citons des gens à quelques encablures des législatives anticipées. Mhm. ñu war faa dem te des hommes politiques pour man am na benn affaire boo xam ne am na benn relation. Ali na nga wax sa micro bi yaa ngi romb sa micro il ne faudrait pas que mel ni ñu koy def. ba pare di rax politique je n'ai pas dit ici. léegi léegi léegi pour pour pour fermer loolu parce que euh, euh, voix autorisée la am quand même parce que si c'est le ministre de la justice qui a qui a parlé Ousmane Sonko dafa ñëw daal di kiiwaat loolu donc loolu si voix autorisée et puis les 12 milliards loolu aussi ça a été euh, démonté quand même léegi ñu ñëw si li nga xamante ni moom la posé répondre rogo si si des comptes ndax du que aussi règlement de compte comme ne ko ñeneen ñi di craindre. ndax du ko nekk man yaakaaruma ne dit ko nekk. Mhm ndax war na koo nekk waru koo nekk dans tous les cas reddition des comptes warul mën a nekk règlement de compte ci état de droit. d'accord état de droit bu ñu ci nekkee. Mhm. dafa war am loo xam ne dañ ko war a distinguer. Mhm. politique mhm. ak li nga xam ne nii moom moom la état di doxee. en termes de justice. ak yeneen justice dafa nekk loo xam ne nii euh, li muy laal ci yow dafa dafa xaw a sensible. kenn waru ko fooye parce que ça touche à la dignité humaine. day laal des fois di laal sa patrimoine mhm. day dem sax ci yenn état yi bay mhm. laal ci sa vie mhm. kon loolu du ay caaxaan parce que am na ay dëkk yoo xam ne ni peine de mort dafa am am na yoo xam ne boo ko defee dem na ba ñu jël ci sa bakkan donc bu fekkee ne dañ ko organiser noonu nag war na doon loo xam ne nii dañ ko war a encadrer telle sorte que ne képp kuñ fa yóbbu ñu cay say mbir xool na yow defoo dara dañ la war a bàyyi nga ñibbi sa kër bu ñu xoolee ne yow mi yow yaa def en tant que lii war a dal ci ah. yow en tant que euh, euh, comme ay sanctions ñu appliquer ci ay question bi que mm-hmm. plutôt relative. Mm-hmm. ak liste ak ñi nga nañ oui oui oui liste aéroport tour et tout ça mm-hmm. aéroport. ñu principe de précaution. droit dañu jël ay mesures conservatoires. par rapport ak yenn c'est pas du droit parce que c'est l'autorité exécutive non c'est l'autorité exécutive. exécutive. qui a donné des policiers il y a aucun juge qui a délivré une note disant que telle autorité ne doit pas aller. Il n'y a aucun juge qui l'a fait. C'est pas du droit. Non, pas du droit. Non, arrête, il Non, c'est pas du droit. Lui, il confond ses opinions personnelles et le droit. Ça, c'est pas du droit. C'est pas du droit. C'est pas du droit. Mesure conservatoire. C'est pas du droit. En termes de procédure. Hmm nous commencé dossier réduction des comptes ba enclenché ba enclenché mhm. procureur dafa euh, les les les les que ça soit été ak mhm. les officiers il y a 5 dossiers qui ont été confiés euh, mhm. à la suis transmis yoy noonu manam saytul len ma xol len ma baxam ndax lii ñuy ni nii wala mais est-ce que da nga di ñu si.

ay la yéwén njortu nañ ne xëy na yor nañ ay moyens yu leen mën a permettre bés bu ñu génnoon réew mi amaanaa xëy na dootuñ ñëwati. ay ah. ah, loolu ay supposition lañ. supposition kon kon yow ci supposition ngay arrêté nit. moo tax ma naan. principe de précaution, à une mesure conservatoire. Non, mais, mais, mais c'est scandaleux ça. C'est scandaleux ce que j'entends. Bon, bon, bon, c'est scandaleux. non, ça dit que c'est scandaleux. Non seulement c'est scandaleux, mais c'est léger pour le juge C'est extrêmement léger. Suspicion, indiscrétion. C'est très léger. C'est droit, mais ce droit, c'est du n'importe quoi. Franchement, comment tu peux dire que sur les suspicions, on peut. Non, mais. non kii li muy wax c'est scandaleux. c'est scandaleux. mais buñ tontontee nii nit ñi duñu déglu. déglu Abdoulaye allez-y. waaw bon man. Euh, par exemple. mais c'est de c'est difficile de doon tenir les

Ah, en fait en fait en fait en fait en fait pour man <laughs> euh, dafa am lu am solo lo euh, conférence de presse bi mhm. man tax dama ci mhm. ndax dama xam ndax damay fay mhm. ana mo duñu waxate sax ba neuf millions ménages bu dina ko fay fi exemple wa, pour wax ne masalan la pour wax ne manam, masalan la masalan la pour joxe euh, wax ne ñun Sénégal yi aussi loolu war nañ ko war nañ ko maanaam bàyyi xel mooy que hmm, Le sunu état un di leb mhm. euh, li tax ma bëgg ñëw que mhm. war nañu xalaat ci ay euh, de fonds euh, ministre mhm. focus que dépendre parce que la politique de la main tendue toujours dafay nekk que sénégalais seen gis nga luy ñuy mm, du que ndaw yi jaar ci yi di ak image en Europe malheureusement les pays qui nous regardent

berte bi ma sama mag bi dugg tey dem ville ndax ca la mm. bokk wala déet ndax autoroute à bi mu jël wala et cetera et cetera ndax infrastructure ndax ca la bokk bu dee loolu la xëy na mën a jàpp ne kon kooku da ko leb dugal foofu wala bokk kooku ndax daf koo deb ci li ñuy wax surfacturation

jeexal même si des comptes par rapport aux personnalités euh, qui sont citées mhm. euh, pour yenn jumtuwaay yoo xam ne war nañ fexe ba tey jii nit ki doo remplir formalité yi ba war a taxaw ba war a embarquer nga ne ko doo dugg. Mhm. pour man humiliation la. Euh, pour man dans les normes même boo demee dans les ambassades si tu es mhm. une personne délinquante boo xamante ni wala boog euh, am lu am lu ñuy njort ci yow. Mhm. boo àggee sax ñoom dañ lay rejeter machine lay ñi ko dàq. donc pour man aussi loolu rek forme de wane ne kii kat ci yoon daa am lu muy njort ci moom. li mu wax parce que yoon dinañ saytu njort nit ne ko ah. nangam boo gis ñu naan mandat de dépôt mhm. atte gu ñu ki mais yoon da koy nëbb benn côté mhm. Mhm. ba lijjanti ay mbiram mais aussi dafay jaar ci fi war a jaar mais pour man doo bàyyi nit ki ba mu rëcc ba defi formalité mi yëpp ba pare ba ñëw nga ne ko ah

ministre de de l'économie na def wàllum le ci économie. ministre ministre de la justice def liggéeyam ci justice. manam tay ji ministre de la justice def liggéeyam ci justice waye tamit. Mhm. porte-parole du gouvernement bi di yor cadre du gouvernement bi. premier ministre na que coordonner l'action du gouvernement. ba ba pare aussi. Mhm. procureur de la république dafa melni ne amul ci réew bu am dossier yo xamanteni c'est à lui de se prononcer. de faire une sortie pour wax ci mais vraiment mënuñu baye dëkk bi euh, kenn ku ci nekk nekk nekk lu ne aussi. dina di nga ñëw di nga ñëw. <laughs> Ah, dañuy terminer mais di nga ñëw di nga ñëw ah, ah, yow ali so bari yaangi duggal dugal. problème yow li wax yaa kii yaa kii yéen a wax plateau bi yëpp léegi dañuy euh, rek jeexalee li nga xamné moy débat bi ci euh, li nga xamné mom lañu mujjé moy fexé ba am li nga xamné mom parce que ñom lañu wax né souveraineté économique bi dafay dafay laal aussi. si loolu ñu am laal leen ci euh, de si laa jëm si laa jëm léegi euh, dañu bëgg rek waa PDS am nañu leen doy fu moom sax Diouf <laughs> est <laughs> euh, nga wax nag si affaire aussi bi nga xam te ni jamono ji bëgg nañ si wax tuuti tuuti temps moom moo jeex mais bu waroon na nekk tamit suñu beneen point bi ñuy ah, laal léegi kon ñu bàyyi la rek nga daal di jeexalee foofu nga tàggatoo également nga waxaale ci cadre boobu xam nga immigration clandestine bi moom mhm. ku ne xam na ni personnellement je refuse de de politiser ça c'est un drame c'est un drame moi je refuse à mhm. politiser mhm. politiser parce qu'on mhm. parle quand même de vie humaine. Euh, ce gouvernement là quand même dafa am ay engagement yu vis-à-vis de cette jeunesse mënuma comprendre le régime passé nga les jeunes qui meurent en mer sont exclusivement de ta responsabilité ou bien de vos responsabilités en tant que dirigeant. Oui. sénégalais yi gis ni def erreur effectivement le même cest à que le même leader bi dit wax génie, le génie, ba jeunes sa projet. Mhm. nga le pouvoir le phénomène reprend au lieu nga am courage ne sama responsabilité la. Mhm. nga des parents yi leen ay pression bi def yi ku gis c'était pas le contrat gis nga dëkk bu la voilà excusez-moi euh, Gunnar Slogan c'est un sociologue euh, euh comment dire, fait suédois fait une étude de belligérance sur la sur les conflits qui peuvent attaquer un pays Si mm-hmm. vous classer les jeunes en tête vous avez boo que si ñu nekk ben force nekk ben poids démographique nekk benn am ampleur bi une solution soit da ngay guerre civile wala da ngay am insécurité wala da ngay am phénomène nouveau yi genre immigration yu mm. parce que désespoir ngay créé. moo tax dans le gouvernement tey mm. ñun de ba dans le monde syndical di xeex. Mm-hmm. ba ñuy dans le monde syndical di xeex. Dirac laaj droit et de demander augmentation de salaire mhm. les différents gouvernements ont succédé Mouidouf, Mouy Diouf di Wade ba ci Sall plateforme revendicative mhm. la réponse unanime que te faisaient tous les gouvernements c'était nous sommes un pays qui n'a aucune ressource ou bien que les ressources soient sont très limitées danaan la aw ma pétrole aw ma gaz d' ailleurs moo taxoon Ablaye Wade à l' époque naan ci bu ma yore woon pétrole ak gaz je je ferai mieux. d' nga am pétrole am gaz te amoo benn solution boo jox jeunes yi. c' est lamentable Ousseynou à quelques secondes rek nga tàggatoo comme ça ñu daal di euh, tàggatoo rapidement. li euh, ñu mujjee évoqué nii mu doon. naaraju mu doon loo xam ne ça pouvait faire l'objet d'un thème quand même l'immigration clandestine muy lu ñuy regretter loo xam ne mm-hmm. nii vraiment day tooyal xel yi boo koy xol yi boo koy évoqué mm-hmm. parce que man je suis un de la jeunesse donc euh, ci mbirum ndaw yi ci laa yëngatu mm-hmm. donc waroon nañ cee mën a wax lu bëri mais temps bi moom moo ñu xooj malheureusement euh, donc li may def pour tàggatoo rek euh, mooy xëy na Euh, di la gërëm di la sant di la gërëm ci invitation bi. merci euh, aussi euh, li ñu fi wax yëpp yàlla na doon njëriñ. pour askan bi nuyu ñi nga xam ne nii ñoom ñëpp encore une fois ñoom laa bokk ak la. d' accord Alima nga sa kon ñu jeexal. waaw man nag xam nga man d' abord sax man fan laay njëkk wax mooy xam nga le nouveau gouvernement des fois damay faral wax naan des fois c' est des gens qui ouvrent beaucoup de front. xam nga tey boo dee xool fi mu toll tam certainement ñi ñu fi tudd encore. tu vas D'accord. suñu waree poursuivre. d' accord clameur dans le pays alors que ñoom. ils ont besoin de calme et de sérénité. ok pour mën a doxal li ñuy doxal. beneen bi tam des fois dama naan ñoom des fois li leen xaw a aussi moom mooy négociation.